Allahu Alhamdulillah salaamaaleykum mbokk internet bu euh, Sénégal 7 comme ni ñu koy defee rek à chaque fois tey euh, xibaar bi nga xamante ni tiis na dal ci kaw presse yëpp animateur bi mag bi nga xamante ni moo ñàkk waa waajuram bu góor ñoo ngi ñuy géeje waaye jóge ci levée du corps bi fas yéene ko euh, gunge sëgg yoo fi ku média la Boubacar koo xam ci yaram tegginam yaatalam euh, ak bëgg nit ak tamit am objectif ci li muy def parce que yéen ñëpp ak moom benn ngeen euh, ay nit yoo xam ne euh, ci nit ñi ngeen di xëy ci wax kon yéen ñëpp ñu leen koy jaal suñu baay boobu Abdourahmane am nañ ci yaakaar ci weer wi ñu ne Kazu Rajab ba pare muy ajjuma ak takkusaanu ajjuma kon defe na am na ci yaakaar bu baax a baax euh, dafa am ñoo xam ne nag euh, kenn dootu leen jooy ni ñu bu ñu am na demin yoo xam ne doo jooy kooku mais da ngay profité ñaan ci parce que am nu lu ci yàlla def euh, dina naqari ci xol waaye ñaan ci dafa am solo ñaan ci barkeem dafa am solo ndax fii ñuy wax ni ñu ngi ci takku tàkkusaanu aljuma ci weeru Kazu Rajab te ku ne xam ne ne Kazu Rajab weer la kon sunu baay boobu yàlla ko yàlla xare àjjana àdduna nag ñëppay tàggoo ndey ak baay doom ak doom ak doom ak waajuram jëkkër ak jabar collègue ak collègue ñëppay tàggoo gis nga fii ñu génne léegi ku gontuwul ñëw fi rek di nga xëy ñëw te xool leen ñi ci biir ñëpp kenn indi fi sa bopp looloo war tax ñu xoolaat suñu bopp te xam ne nit kenn mënulul kenn ñun ñii fi taxaw yëpp kenn xamul kan mooy mujj ci sa morom kenn xamu ko ñun ñii ñëpp man xawma ma bu ma bu ma fi jógee ñan ñoo may gunge ci yéen wala ñeneen ñoo may gunge lu muy firi mooy nañu yéenante jàmm nañ leen yërëmënte nañ leen jàppante jamono ji lëndëm na metti la te àdduna boo koy xool dara neexu ci dara neexu ci sunu borom li muy def mu koy def mi ngi jël te loolu la ñu wax woon daf ñu ne woon dinaa leen tàggale yéen ñëpp maa leen di bind teg leen ci kaw suufaay maa leen di tàggale yaag sa yaay di ngeen tàggoo yaag sa baay di ngeen tàggoo yaag sa doom di ngeen tàggoo waaye li ci am solo mooy góorgóorlu ba tekki ba bu sa baay génnee àdduna bala sa waajur nga mën koo taxawu boo gisee yàlla nañu yar doom yi nañu yaral sa doom xam nga lu tax pour bu ëllëgee boo fi jógee am ku la ñaanal ndax waajur bu xasee dem heure boo jullee war nga ko ñaanal ndax alxuraan a ko wax bu guddi àjjuma guddi altine bu at bu jotee ñoom ñëpp dañ leen di génne ñu taxaw di xaar sen kado kado yi mooy lan xul wallaahu ahad ci la njaboot gi defal xoola am na ñoo xam ne dañuy toog ba fajar du kenn du leen ñaanal bu ko defee malaaka bu ñu ñëwee dañ leen di puus ne leen dem leen dellu leen yéen xanaa liggéeyu leen dara ci kaw suuf kon loolu moo war a tax ñun ñii ñëpp ñu war a góorgóorlu baax jàng baax di def lu baax. loolu daal laa doon profité leen ko wax leen ko jaale. jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ngir bàyyi la xam nga ne Boubacar Diallo bu weesoo li ngeen bokk di liggéey kilifa nga ci moom ku la jox cër la yan kàddu ngay jëmale ci moom ginnaaw bi nga xamee ni waajuram jóge na fi mu nekkoon ko ko jege tamit d'après ces informations yi nga xamee ne am nañu ko. sama kilifa la ci liggéey bi. Hmm. waaye kilifa la am ci deret. Hmm. ndax dénk na ma boppam ci kilifteef waaye mooy sama kilifa ci liggéey bi ndax soo suma directeur la hmm. kon ñun ñoo ñàkk ñun ñoo ñàkk te ku ne xam ne ne Boubacar euh, benn minute Boubacar rek dafa précieux ci liggéey bi ku ñu bari soxla ku ñu bari yittewoo Boubacar amul Boubacar day daw rek day daw rek day daw rek ñu bari sax ñi ngi dajeeg Boubacar euh, te duñ ko xàmme parce que du jël oto sax day yàkkamti ba jël scooter yi ci lay doxe ay soxlaam ku mel noonu nag dañ koy ñaanal yàlla xolu muñ te yàlla tas ko euh, ci barke góor gi moo ko papa Dou bi ñu bokkal liggéey bi ak sele mi ñu bokkal liggéey bi li nga wax dafa am solo euh, doom la ju baax doom la ju baayam gërëmoon doom la ju daan giseek baayam kon loolu te góor gi dem nag euh, day jàngalekat te bokk ci jàngalekat yi nga xam ne après l'indépendance boo gisee ñu naan enseignant góor gi Abdourahmane Diallo tax ak génération kilifa yu bare ci réew mi ñu ñoo leen jàngal ñi nag ñoo doon ay enseignants. kon ce qui veut dire que borom xam-xam dem na. kàggu dem na mémoire dem na yàlla na ko yàlla yërëm. merci waaw. Mustafa <laughs>